internet yi ñoo ngi leen di ñu ngi fii Ndindi kër Cheikh Abdou Karim Mbacké Makarama Allah ñu fekk fi yaaw jaar yaaw ñu ngi lay nuyu waaw laa ilaaha illallaah Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba ma sante sang-sang yi di sant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di sant sama sëriñ Ablaye Wade bu baax di sant sëriñ Abdou Karim Mbacké borom Makarama Allah sant nag waaw waa kër sëriñ Bamba yëpp ñoom daal maa leen sant baax di leen gërëm waaw yow nga ñëw ren ji Touba magal gi di suba noo gisee magal ren ji nii non ma xam nga moom dafa màggal màggal gi yaam xam ne chaque at yàlla di def affaire day naat di baawaan yàlla day wan ne mbir mi sëñ Bamba ko sëñ Bamba la am na ñu ngi koy ñuy ñaan yàlla bépp doomu aadama bu jógee Ndakaaru muy saw ak lu ñu koy waxatee yooyu noonu ah bépp doomu aadama fu mu bàyyee ko doon sàq fi ñaan rek yàlla na ñaanam lépp mu réussir te mu yokku si barke alxuraan karim barke sëñ Fallu ndax loolu ndamu murit la te ndamu Serigne Touba la ñëpp jógee fee ñoo ñaanlu mu dem këram mu daal affaire am changement ko loolu <laughs> loolu ñaan suñu borom nag waaw waaw ren ñu ñëw fekk la fii kër sëñ Abdou Karim lan mooy sa diggante ak waa kër sëñ Fall sa diggante kër sëñ Abdou Karim. ah ñu ne murid lañ kat ñun dañuy jéem rek mais ñun ay waa kër sëñ Bamba lañu. sama papa la la moo nga ñëw fii nii kii euh, ci njëndi kër sëñ Abdou Karim. ah ah ah, ah, ah. <laughs> lan moo la boole ak moom ah yow tamit xanaa fàttali ne bàyyi Karim ne borom maxrim ak laa moo tax ñun. mënuñoo xas doomu aadama mënuñoo xuloo mënuñoo xeex mënuñoo histoire ndax maxrim ak laa bi xam nga tey lu doon doomu sëñ Fall bu demee bu dugal si biir xolam kon yaa war a mën a xam foo teg sànq bul wax loo xam ne dañ la koy xeebee. sa diggante sa diggante ak moom nu mu demee. non sant yàlla maanaam man fu ma jëlee damaa loolu wax dëgg waaye man dafa maa defar defaraay boo xam ne nii wax dëgg si yàlla tey faale moo kii di fay ko 200 millions si lamb wax dëgg ku dee see ba mel am na loo xam ne def ko sama biir sama biir boppam maa ngi ko seer ko jar sama ñaambur ndaxte am na yenn kilifa yoo xam ne bu ñu demee tey ba bëgg la sa bopp waroo saaga waroo waroo xase waroo ni wax nit lu ñaaw yaa ne soo mënu arrangé bul wax lu ñaaw kon xamal rek baca wala nga ba si kon fu mu nekk nii Baye Fallou Serigne Abdou Karim nga pire léegi Abdoulaye Wade foo koy def laa ilaaha illallaah ñaari mënoo kaa boole de Baye Fallou Abdoulaye Wade wala Serigne Abdou Karim xanaa yow da nga fàtte ne Abdoulaye Tall Serigne Touba la waaw mais bokkul ba léegi non non bu la bokkul de dërëm ak dërëm ñoo mën a ànd de dama ne Serigne Abdou Karim Abdoulaye Wade eh, eh, bokkul tey ma xal la dama bëgg nga tey ma xal la Abdoulaye Wade Tall Serigne Touba la am de ah? kon boog jóguma si murit rek ne damay dem euh, li ñu koy wax de si siyaan ba wala si deex ba man la fu ne xam nga ko Abdoulaye fu mu nekk murit la ba Sénégal xam nga ko kon yaaw jàll <laughs> mooy loolu man sama papa le 20 avril 90 la gars yi dañ fi Touba <laughs> ak sama mag bu jigéen kon ñun am na ñoo xam dañoo waale si rek <laughs> sant yàlla quoi ba boo ko bëggee bu la neexee mën nga waale yaan si waaye ñun la du hasard du neex a dégg am na ñoo xam ne ni dañoo jóge si siyaan ba jóge si deex ba jóge si géej ga daw ñëw ne man murit laa di wane kon yow mën nañu wax ne da ngaa màggee ci murid gi daal. dama dama si ma gis sama papa sama papa gi Touba gi ñu denc <laughs> am ñoo xam ne am ñoo xam denc leen fi de <laughs> dégg fu waxee de. dama dali foor nga laajte samay rakk wala nga laaj sama yaay wala nga laaj samay doom baay wala nga dugg dali foor nga ne famille ñoom yaaw jaay yàlla lañu ndax ñu leen ne ndax ñoom ay génn ñu wala ay dex lañ par exemple quoi c'est ay kii dañu leen wooy ñoo ñoo ñu maa mel ma mel nii rek mais boo demee suñu ko dali foor ay xasida sëñ Bamba rek barke sëñ Bamba kon jërëjëf yaaw jaay wasalaam